fuñ taxaw noonu di waxaaleeg bu ndaw si la sama jawaru mag bi woote ne dem leen hôpital Gaspard Camara am na koo xam ne nii boole naa leen ak moom ma duggaat ci ambulance bi ñu tegaat ma téye ma dugal ma si ambulance bi ma dem hôpital Gaspard Camara bi ma fa demee ñu téye ma dugal ma ci benn néeg di pikir néeg bi kilim lañ fa def maa ngi nuyu benn femme bu baax bu mu fa yoroon ñu koy wax madame Diop. summi ba ma ma set buñ ma pikiree sama yaram bi fépp fu am bën-bën wallaahi enzim ku dee ak sa bàmmeel lu tàng jir moo fay génn. ma nekk fa nekk fa jour bi ma yàlla mayee sama doom bi juddu dama xëm ñu jël xale bi yóbbu ko hôpital Gaspard Camara. ma nekk fa trois jours ba ko ma yeew man an sama doom xanaa man awma doom ñu ne xale bi juddu na bañ yóbbu ko hôpital Gaspard Camara bañ yóbbu ko hôpital Fann mooy si Albert Royer booba gisuma kenn ku du sama jëkkër ak sama yaay Ibrahima Coulibaly moom gis laa gis mu topp sama ginnaaw nekk sama gauche nekk sama droite ma nekk hôpital Gaspard Camara bañ na ma léegi mën nga di dem kër ga di jël rendez-vous di ñëw ma boole ñaari hôpital su ma demee hôpital Gaspard Camara xool sama yaram après dem hôpital Albert Royer tiire sama meew yóbbul sama doom hôpital Albert Royer nekk nañ fa maak sama jëkkër bi un mois quinze jours xale bi nekk si couveuse du pesé huit cent grammes loolu lu ma gën a métti ci àdduna am na si bëgg a nit éliminer nit si benn dossier éliminer doomu bakkan doomu aadama nga xam ne man sama bopp bii su ma ko muurul ma xam ne du ma nit sama bopp bii su ko muurul ma xam ne man wallaay rangim du ma nit gis nga hôpital Fann tey ku fa demoon nga yóbbu fa micro ñu fa nekk nekkatuñ fa sax ñëpp ma xamoon ma nekkee fa nag am yërmande sama jànk bi xat yi mi ngi nekk Grand Yoff heure bu nekk buy togg 5 kilos lay togg ñu indi ko foofu képp ku nekk Kër Massa wala nga nekk ay mbay Kër Mbay faa nga xam doo am ku la indil ay man ñii la ñu bokkee ñu lekk moo tax sama problème dañ ko bokk ak man ma nekk foofu noonu presque un mois quelque ba médecin bi ne su deuxième analyse bi génnee bu fekkee ne xale bi gisaatuñ beneen feebar da nga ñibbi sa kër su lañ ma woo na ma dafa am benn xale bu jigéen bu fi indi benn plainte xale bu jigéen boo xam ne daloon may nax nag li mu wax yoo xam ne lu xew ak lu am bokkul billaahi wallaahi bu fekkee dossier bii man Ndeye Khady Ndiaye maa nekkul ci dëkk yàlla na ma ko yàlla suñ borom bi wan àdduna bi yëpp nañ ko teg bët ma am gàcc gu rëy bu fekkee dañ ma tooñ yàlla na ma yàlla àtteeg ñu ma tooñ toog di sosol nit di waxal nit lu amul yàq deru nit di ko dëkkale fu mu dëkkul jox ko mu lekk ay doom juddu ba pare nag nga ne danga koy jàpp nag nit ku am doom nga bugg koo tàqaleeg doomam liir boo xam ne 800 grammes la doon pesé nga bugg koo tàqale ak doomam si waxal benn kàddu mu bañ man buñ may fay samay 15 millions hôpital euh, buñ may fay 15 millions yi buñ ma koy fay section de recherche dama am seede dama am seede billaahi wallaahi taala bi ma génnee ci euh, section de recherche bi noonu ñu may utal avocat mu ñëw buñ may woo sama avocat moo ne ma defal téléphone bi mais libre ma def ko mais libre bu njëkk maa fay 15 millions léegi dossier bu dara nekk lu ñu ci fay nit lan moo tax mbiru fay bi duñ ci wax ak kan moo woote ak kan mooy fay lu xew ba muy fayaate bañuñ ci dara nag alléeruñ si benn yoon nga suñ bakkan bii moom lañ ci teg bu leen neexee nañ ma baare fépp bu ma lekk bu ma naan nañ baare sama njaboot fépp bu ñu lekk bu ñu naan mais naa am yàlla rek naa fexe ba man bu ma tëddee ci bàmmel wallaahi rangim dinaa dinaa benkarti ko bu baax a baax a baax a baax dafa ëpp doole nekk ci ressources yi di saaga nit man boo gisee ma filtré samay sama compte TikTok bi nga xam ne moom laay liggéeyee commentaire yi dafa am ñoo xam ne dañoon dugg ci biir commentaire yi di ma saaga te man xaw ma nu ñuy saagaa nit xaw ma lu ñuy waxee nit lu bon xaw ma ko sama xol bu rafet bii moom la ma yàlla suñ borom bi fay sama xol bu rafet bii moo tax yàlla suñu borom bi dimbale ma sama xol bu rafet bii moo tax nit utilise ma ci tey laa gën a am yërmande ci doomu aadama tey jii laa gën a am yërmande ci doomu aadama samay employé sama kër lu fa jaaroon kenn xamul lu mu toll kenn lu mës a génn ci àdduna te kanaan ñu fay la xaalis comme ñeneen nga génn di ma waxal lu ñaaw xaw ma lu ñaaw xaw ma lu bon xawma lu ñaaw xawma lu bon xawma def nit lu bon te képp ku may wax lu bon ak képp ku may defal lu bon barke salaatul faati da nga koy gis loolu laa amoon lu may leeral parce que comme que man damay def live heure bu ne suma ma duggee laaj ak leneen lu may leeral lu ñu xam dafa bari lu ñu yor dafa bari te dossier bi maa ngi ñaan yàlla suñu borom bi ñu dem projet lépp leer te billaahi wallaahi taalaahi maa ngi koy yàlla suñu borom bi ñu dem projet te yàlla na ko yàlla suñu borom bi def ñu dem projet lépp leer da nga gis ñoo xam ne foofu la ñuy jaaree xaru ji da gis ñoo xam ne foofu la ñuy jaaree wallaahi rangine dootuñ jar dara ci àdduna bi danañ ñaan yàlla suñu borom bi képp koo xam ne julli nga rek ñaanal loolu ñu dem projet amul loo am lu ñu yore nekkuñ loo xam dañ koy ñàkku di ko teg ci internet bi di wax naan lii diw nii diw naangam non nañ ñaan yàlla suñu borom bi ñu dem projet lépp leer bu fekkee ñun ñoo nekku ci dëgg yàlla wan ñu ko mais bu nit di live nga taxaw naan justice diw mel moom mooy juge dossier bi dafa nekk ci ay loxo ñun buñ ko sayoon tey dossier bi jeex dafa nekk ci ay loxo yu wóor kenn du juge sa bopp kenn du juge sa bopp dañ lay woo te heure bu ñu woowee même bu ñu woowoon digg guddi dañuy dem wuyu ci ragaluñ lu ñuy def alliéeruñ ci dawuñ yox wuñ live bi nag fi lay yem parce que dafa am client yu may xaar place bi Gambie quatre-vingt mille